asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi yëkkati ay kaddu ci turu sëriñ Amdi Fall mii toog di jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall. muy kaddu yoo xam ne mu ngi bàyyikoo ci moom jëm si mboolem murit yi ak képp koo xam ne kii rek yaa ngi nuy teewlu walla kàddu yi mën naa egg si fi yow. li jiitu ci ay kàddoom nag mooy yeesal pas ak yaakaaram ak njëbbalam ci du mun taxa di ko ñaanal yàlla sunu borom guddal aw fanam yàggal ko fi lool te wéral ko ba naal yi mu am liggéeyal ko sëñ Tuubaa Xaadim Rasuul ak ña ko jiitu ñëpp mu def si lu kawe njortam di ñaanal njabootu sëñ Tuubaa gépp yu topp ci gannaawam naka noonu muy sant ak di yeesal ay ngërëmam ci ñi nga xam ne ñoom la bokkal Cheikh Ibrahima muy njabootu Cheikh Fall gi mu àndal liggéey bu màgg bii di leen nuyu te di leen sant di leen gërëm di fedd feddali eh, ak jàppam si ñoom ñëpp rek di nuyu taalibe yi fu nu mën a ne muy murit yi di leen sant di leen gërëm te di leen ñaanal sama boroom borom na leen ba sëriñ bi bëgg lépp nu ma ne ko ni ko sëriñ bi bëggee te defe ko noona jataay bii nag sëriñ bi moo ko sàkk woon muy sëriñ di Fall di jëw riñ ma am Ibrahima Fall li waraloon càkkutéef géet li mu nu si digal nu wax ko mooy mi ngi aju ci xew-xew yu bari yu fi xew ci ginnaaw fan yii ci ginnaaw muy loo xam ne dëppoowul ak lii nga xam ne moom la yoon wi baaxoo di doxe noonee muy kàddu yoo xam ne dégg nañ ko mu yaatu lool ci tur di si tudd aw turam ak di ci tudd turu Cheikh Rafal ak njabootuk Cheikh Rafal te moom muy jëmmi Cheikh Rafal toog yor baat bi te loola de bàyyi ko wut si moom yëgu ko joxewul ndigal la moo taxoon mu jàpp ni yell na mu yëkkati kàddoom gannaaw ba nga xam ne wax jooju lu si bari dem na ba àgg si jëwriñ ji sëñ tubaa ji di Cheikh Modou Mountakha wax ji àgg si mboolem njabootug sëñ tubaa gi ak njabootug Cheikh Rafaal gi te moom muy jëwriñu Cheikh Rafaal toogal fi Cheikh Rafaal toogal fi murit yëpp di ñagub yoon wi nag ndax Cheikh Rafaal moo naka jëkk moo doon ñagub yoonu murit muy xamle ni ñoo ñi nga xam ne dañuy tudd ni danoo bokk si kër gi wala danoo bokk si njabootug Cheikh Rafaal te dox tànk jéego yooyu nga xam ne dox nañ ko wax na ni ñoom day tooñ nañ yoonu murit tooñ nañ sëñ tubaa tooñ Cheikh Ibra tooñ nañ murit yëpp te tooñ googee moom mii moo si jiitu ndax lépp lu nu wax mu jëm si kër sañ tubaa lu bokk la ndigal loolee ku ko def ku ne moom mii nga tooñ ndax mooy jëmmi Cheikh Ibra loola wallam la moo ko warloog moom mu bëgg a leeral nag murit yëpp moom fa mu nekk day wax ni moom li ko fi indi te bàyyiwu ko bàyyi ko fi weesuwut lëggeel sëñ tubaa moom la Cheikh Rafal defoon diggam ak sëñ Touba jox ko boppam ba desewul dara bàyyi ab juddoom bàyyi àlluwaam bàyyi xam-xamam bàyyi darajaam bàyyi lépp di jox boppam sëñ Touba ne ko dan liggéeyal ko liggéey boo xamante ni bii kenn mësu koo dégg si taarix du si li ndi jiitu woon sa yonent yaag nit ñu baax ña ni sëñ tubaa ànde woon ak Cheikh Ibrahima Fall wala ni Cheikh Ibrahima Fall woon sëñ Touba mosee su koo dégg wala nu xam ko wala nu gis ko lu na mel ànd bu na mel lam ko jural nag ñëpp xam nañ ko mooy mu dem bay Babil Mouridine rek yoon wii li muy rëy rëy ak li muy yaatu yaatu yaatu da ngay mel ni Cheikh Ibra dox doxinu Cheikh Ibra Fall ñu soog laa boole si yoon wi waaye loo mën a dégg keneen ku mu mën a doon doxin woo mën a dox wu wuuteeg doxinu Cheikh Ibra da nga waroo ak li nga xam ne moom la Serigne Touba bëgg ndax lu Serigne Touba Cheikh Ibra Fall jëfal Serigne Touba rek Serigne Touba sant na sa gërëm na te nangul na ko ko te mosuñoo dégg fu ko sëñ tubaa aayee dara wala mu yedd ko kon la Serigne Touba bëggoon Cheikh Ibra mu sa loolee rek la newoon te boolewu ko woon ak dara da ko doon wax ni ko bëgguma àjjana ragaluma sawara yow rek laa bëgg féetal ak yàlla yow mi ko xam ma féet ak yow man mi la xam jox ko ak dundam jox ko ak yëngutoom jox ko ak dalam jox ko addinaam jox ko àllaaxiram kooka nag amul jotug di jëf lenn loo xam ne wóote na wala waroo na ak ndigal yi nga xam ne mooy bàyyikoo ci Serigne Touba tey jëm ci murit yi kon sëriñ Amdi Fall wax ne li ko fi bàyyi moom mooy lëggéeyal sëriñ Touba li ko fi bàyyi mooy ndigali Cheikh Modou Mountakha mi nga xam ne mooy sëriñ Touba lépp lu sëriñ tubaa bëgg muy Cheikh Modou Mountakha loola mooy ak bëggam lépp lu sëriñ Mountakha jublu loola mooy ak jubloom waaye lépp lu sëriñ Mountakha wan ginnaaw na xam ne sëriñ bi du mooyu na ko te dootu ko geesu ba mukk seddi na loola mooy kàddu sëriñ bi boo ñëwee fii tubaa xam ne sëriñ bi mu ngi si ndigal li ko sëriñ Mountakha jox Baye Fall yi amuñu jotuk nekk di wëndeelu wala ñuy taxawaalu wala ñuy dugg lu seen yoon nekkut bokk si yoon wi nag sant faal mayut kenn cër bu tax mu mën a wax ci turu yoon wi ndax Cheikh Faal dafa am lu mu nu faggul loola jamonoy Cheikh Modou Moussa Mbacké ba sëñ Tuubaa su suñuy bët Cheikh Faal moo waxoon sëñ Modou Moussa Mbacké ne ko toogu gii de boo ci toogul kenn du ci toog ne ko sa baat dong la ñuy déglu sa kàddu dong la ñuy déglu ba tey jii ku fi mag ci njabootu sëñ Tuubaa rek yaay toog jataay boobee te loo wax yëpp sa la ñuy tënku jàngaleem Cheikh Ibra Fall moomee nag segam moo dox si kër Sëñ Touba asamaak fii mu bàyyi koo di woon kër Cheikh Ibra benn baat moo am si kër Cheikh Ibra Fall mooy baatu ki nga xam ne moo fi toogal Cheikh Ibra Fall tey muy am Amdi Fall mu sëñ Modou benn yàlla suñu borom yàggal ko fi. amiin kaddu googu nga xam kàddu guy jib ci turu yoon wi yaa xam Fall nga sant wala noo bokke ci Cheikh Ibra du cagintug ni da nga saa bokk tax nga jàpp ni am nga sa kaddu wala am nga baat boo war a wax baat bi benn la Serigne Amdi Fall ko moom ndax mooy maam Cheikh Ibra Fall. sëriñ am ni nag si li sëñ Touba digle li sëñ Muntaxa tënku rek la tënku si loola rek la ne kon képp ku dem fi barab di jàpp ni da ngaa bokk si njabootu Cheikh ndax Fall nga sant ne ab Baay Fall nga tax jàpp ni war ngaa wax si turu yoon wi da ngaa sëriñ bi nag nee na loola mayu ko ko kenn bay ba bay mënatu seetaan kenn di doxe noonee ndax yoon wi la si sëriñ bi fagg woon ba léegi daa bàyyi woon dundam gépp mu jaayante ko ngir yoon wi taxaw ba mel nii bu mel kon kenn du jóg di gone rawatina di si dox doxin woo xam ne da naan nu ma si neex laay doxe sëriñ bi nee ñoo ñii nga xam ne ñoo doon wax sa bis boobu yi nga xam ne moom la moom la moom la ku jigéen kooku doon woote nee na musu faa yeble musu saa digle dara kàddoom musu see jóg def na ko ni ko sëñ taxaa def ni sëñ Muntaxaa def ay da jàll noonu la sëriñ Amdi Fall mi def Aïda Diallo amu si ak yàq amu si ak defar te bu amoon ndigal ci saafara loolee moom mi dana ko saafara waaye day di ndigal lay teewlu moom dégluwul lu dul ndigal soxlawul jëfe xelum boppam ndigalu sëñ muntaxaa rekk lay teewlu sëriñ bi kam mën a jëflanteel mooy ka tënku si ndigal ndax ayda Diallo moomukat kat ñëpp maase nañ gis ni sëriñ Moodu Muntaxa woo na ko ba mu ñëw mu digal ko waaye ñëpp seere nañ nit la ko sëriñ Muntaxa digal da koo sànni ci àll ba lank ni du ko jëfe kon képp ku di murit rawatina nga di Baay Faal ngay suuxat lenn lu jëm si ayda Diallo dafa mel ne li sëñ Tuubaa bëgg yow bëggoo sa dara dafa mel ne li sëñ Muntaxa joxoñ yow jubluwoo ko te ku jubluwul li sëñ Tuubaa bëgg jubluwoo li Seex Muntaxa bëgg kon sëriñ di Fall mii di Seex Ibrahima Fall wan na la ginnaaw ba faw te bokkoo si moom laaloo woo si moom si lenn sëriñ bi li mu digle mooy li sëñ Muntaxa wax li sëñ Muntaxa bëgg nañ ko def ndigal li lenn rekk la muy sëñ Muntaxa ko yor di ko joxe la mu wax ñëpp dégg nañ ko kookii nag doon woote bis boo bii tënkuwut si ndigali sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa mii sëñ Muntaxa woon na ko wax ak moom mu lànk ne du ko def kon kooku fetteerlu na aw na yoonu boppam ana kuy tuddoo murit nag dem naan da ngay da ngay teew ci bisam ba di sa jël kàddu ba di sa wax ci turu maam Cheikh Ibrahima Fall te jàpp ni ab sët nga wala ku bokk ci kër Cheikh Ibrahima nga am na ku wax ba tudd ni biir néegam ay photo yu nataalam la fa def te dana ko def sa mbedd ma ña nga xam ne jël nañ kàddu ci bokk ci njabootuk Cheikh Rafal ne ñu sant Fall lañ seeni baay di bokk ci njabootuk Cheikh Rafal ñu jël fa kàddu wax ci turu Cheikh Ibrahima Fall Rafal nekk nii te ñëwuñu tàgguwuñ ko waxunoo moom digalu leen ko santu leen ko ñooñee tooñ nañ sëriñ bi sëñ bee ko waxal boppam tooñ nañ ko te am na si lu ko naqari te buñ ko tuubut dinañ dajeeg lu leen lor nañ xam ne sëriñ bi si lim ne mooy ndigali Cheikh Modou Mountakha yi nañ xam ne sëriñ bi si lim ne mooy njàngaleem Cheikh Rafal ma diggam ak sëñ Touba sëñ bi soxlawul leneen wootewul leneen am na ñoo xam ne ñi ngi wóor jël ay sabar di wër si dëkk bi di teg nataalu maam Cheikh Ibrahima Fall naan ku gëmut kii di wax wax ju tegg ñàkk teggin wax ju bon bon di ko wax naan ku gëmut kii nangam ñooñee am na ñooñee gis nañ leen ñëw nañ fii fi sëriñ bi ba wax leen ko ñoom nag loolee ñu nekk nañ ko bàyyi wala buñ ko bàyyiwut waxtu wu ñu ko gisatee sëriñ bi joxe na ndigal ni nañ ta jëflante ak ñoom ba nu xam ne ñoom li ñuy def bokkul ak dara dara dara Cheikh Ibrahima Fall ak ku aju si Cheikh Ibra ab Baye Fall li nga xam mooy jikko rafet lañ xam si moom Cheikh Ibra Fall makaarimal axlaax la tëggee yoonam wii ab Baye Fall day yiw ab Baye day day day day sell ab Baye day jub ab Baye Fall day day day tabe day nangoo liggéey ab Baye Fall day déglu ndigal te du jiyoo moom mukk sedd na day bëgg ab sëriñam yaakaar ko te du ko booleeg dara ku bëgg sab sëriñ nag doo ko teg jàkkaarloo moom di yëkkati kàddu yi tegginuwul sax mu di ko dégg loolee bokkul ak yoon wi nga xam ne yoonu taalibe la keneen ku mën a doon nag segam ñi sant faal lan la sëriñ bi bayatu mayut loola astima keneen ku mën a doon tey tuddoo yoon wi ndax damaa waxoon ni sant faal taxut nga am baat ci kër Cheikh Ibra baat bi benn la te sëriñ am dee ko yor loola Cheikh moo nu ko faggul képp ku ko bañ xamal ni bañ nga li Cheikh Ibra Fall indi bañ nga li sëñ Tuubaa suuxat te loola boo ko bañee génn yaa génne sa bopp si yoonu murit doonatu ab murit kon sëriñ bi nee na nañu delloo si xel yi bu baax nañu delluwaat ci li nu sëriñ bi jàngale sëñëb laa Lahat daana wax ni sëñ Tuubaa daana leen digal ne leen saa bu ngeen demee ba melaw jamono bëgg leen a yóbbu si boppam yéen delloo leen seen bopp sa yàlla si saasi bu leen ko waaj dafa mel ne melaw jamono nag la ñu toll fi mu ne moo bëgg a fab bi nit ñi ni am koom am xaalis bu fekkee ni da jëm si xaalis a leen fa yóbbu mën na noo amee feneen xaalis fu dul foofa mën na war na noo mën a sàmm seen ngor war na noo mën a sàmm seen juddu bu rafet boobu war na noo mën a sàmm njàngale mi ñu leen jàngale war na noo bàyyi xel bokk yi nu bokkal seen rafaal nga xam ne ñëpp daw nañu wuti ko wala su ñuy dem di tuutal seen bopp si loo xamante ne si boo xamante ne si du seen wàll du seen cër képp koo xamante ni kii nag yëkkatee ti nga kàddu wala nga doxati si wàll rawatina sax si wàll bu jëm si Aida Diallo wala ku mu mën a doon lu wuuteeg ndigali sëriñ bi sëriñ bi nee na su boobaa matuwaay yi muy jël mooy dana la teg si aw yoon ba nga xam ne yow dëppoowoo ak li sëriñ bi bëgg ndax kat sëriñ bi joxe woon na ndigali nu woo procureur ba mu mu mu xam ne tooñ nañ yoon wi mu woo procureur ñu jëflante ak ñoom waaye loola àgg nañ si Baye Fall yi duñu sax xaar loolee. kon nag nanu xam ne sëriñ bi li mu bëgg mooy nanu teg yoon wi fa mu fa mu war a nekk nañ nañ nañ ko suuxat te xam ne puso bi wërta réer mukk di réer si ñun rawatina si moom du ko seetaan mukk am xelam du ko du ko seetaan dooleem du ko fay aw fanam du ko ko bàyyee lu lu mu jar dana ko si def te joxe na ndigal képp ku mën a doon si réew mi nga dox ak bitim réew nga wax si turu Cheikh Rafal wala nga dox ci turu Cheikh Rafal lu wuuteeg ndigalul sëriñ bi sëriñ bi nee boobaa jël na matuwaay yoo xam ne da nga xam ne dugg nga si loo war dugg te su boobaa loola si fekk rek loola yaa ko teg sa bopp sëriñ baa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. amin faal amin amin amin faal amin amin faal jërëjëf faal